dëgg di ko ñaanal jàmm rek. waaw di ko ñaanal jàmm ba jour bi rek suñu borom dafa ñu ndam. ndaanaan ngay bëreel na. waaw moo tax ñu jël ko li mu nekk ndaanaan moo tax ñu jël ko. yéen ñaar ci wàllu bëre bu ngeen bu ngeen ba patee. man ragaluma dara ji bëre bëre door daal la ñu def su ma ñëwee dinaa def lépp. bu indee xeex. lépp laa indi Iba lépp laa def incha allah lépp man yooyu jaaxaluma. combat bi suba la. man pare naa. pare naa pare naa si lépp waaw. loo koy yóbbante. ah mais ay mbokkam man ma liggéey ànd ak mboko mbokk ñun ñëpp yàlla defal ñu jàmm defal ko promoteur bi ba jour ji incha allah ñu bëre combat bu neex ah. gis nga ni mu fi mujjee ak bëre bu mu bëree woon. yaa ngi koy di di di gëstu ci moom pour xam kii mooy kan. waaw man tamit gis nga ni ma fi mujjee woon ak bëre bi ma fi bëre. wa bëre wane nga lu rek. waaw làmb la rek. wa est-ce que di nga bëreeg nit di ko gëstu di xool ki nan la mën ak fan nga ko war a mën waaw man damay def loolu ah. waaw man damay def loolu. yaa ngi bàyyi xel. ma ko xel nag wax dëgg yàlla. ci loolu te daa ko def. lu ma koy bàyyi xel. <laughs> man du ma bàyyi xel dara. xool ko du ma ko bàyyi xel. Eh, ñun pare nañ bu yàgg. naa la lépp ndax ci loolu nag yëpp jàpp waaw